Amis téléspectateurs, bonjour ou bonsoir. Quelle que soit l'heure où vous me regardez, bienvenue dans votre toute nouvelle chaîne Pexxe TV. tey nag dañ leen indil thème bu am solo thème boo xamante ne ça parle de la société. Comment sera le Sénégal de demain par rapport à la nouvelle génération et nos dirigeants maanaam nan la Sénégal di mel suba euh, par rapport ak nouvelle génération bi ak suñu njiit yi bu ko defee ñu dugg ci biir dëkk bi xool réaction askan sëñ bi nuyu naa la. fay naa la soxna si. yaa ngi si jàmm sant yàlla bu baax a baax. sëñ bi tey suñu thème dañu bëggoon a xam yow lan mooy sa xalaat ci suñu thème bi nan la Sénégal di mel demain par rapport ak euh, nouvelle génération bi ak suñu njiit yi lan la Sénégal di doon. waaw Sénégal li muy mel demee mooy mag ñi dañuy wax nii xale yi ni ñuy màggee moom nañu doon ëllëg kon donc xale bu ñu normalul mënuñoo nekk ëllëg normal kon donc mu ñu normal il faut état bi gëstu leen def def éducation bi ba ñuy jàng teg leen ci bonnes conditions yu baax. ëllëg ñu mën a gérer réew mi parce que tant que ñu loolu kon def naa ne génération bi day dëkk bi du mën a def parce que bu ñu nee dëkk bi développement day am nay xale yi jàng base bi mooy jàng jàngal xale yi teg leen ci condition yu baax ndax ëllëg ñu mën a am président bu baax waaw. en réalité su loolu soo ma ci laajee dinaa la ci sawar a tontu parce que ñun ñëpp ay doomu jeune Sénégal lañu en plus tamit ay jeunes lañ yoo xamante ne dañuy ñaan yàlla suba tamit suñu opportunité biir dëkk bi mën a feeñ ci feeñaay bu rafet kon gannaaw sant yàlla julli ci Yonent bi. Eh, parce que Sénégal tamit dañ ne nouvelle génération conscient mais dama naan nouvelle génération inconscient lu ko waral mooy dëkk suñ demee ba njiit bi nga xamante ne carrément moom ñoo war a jiite wàcc yoon kon jàppal ñu lekk ci ginnaawam pour mu wàcc yoon dafa yomb te templis dëkk bi dafa am ay réalité yoo xamante ne daf fi nekkoon suñ demee ba jimi jamono ay réalité loolu di gisatuñ ko tiit war na ci ñun parce que soo xoolee suñu diine bi tey ni ñu koy pratiquer mag ñu baax ñi instant bi ñu toll nii am nañ responsabilité pour taxaw wax ak li nga xamante ne mooy askan bi surtout diine bi nga xamante ne moo nekk Sénégal nit mun naa perte valeur bu ne mais diine soo ko pertee rek perte nga àddina ak àllaaxira te ñun suñu valeur fii mooy suñu mag yu baax yi nga xamante ne ñoom lañ fi yàlla indil comprendre nga léegi nag man dama part damay gis ni Sénégal yi dañu war a yeew ci lu bari. Sénégal moom tey ak Sénégal démb ak Sénégal ëllëg ñun ñun dañoo bokk ci Sénégal démb. xëy na sori wuñ ci lool nag waaye tamit am na luñ ci xam lu tuuti ba tax na tey ñun dañoo gis Sénégal tey tamit ban ba man boog man de bàyyi naa ci xel lool ëllëgu ndaw ñi ëllëg parce que Sénégal dem ñun am na yoo xam ne ba fi ñu ni sama âge bi ni mu toll nii sañu ma ko ñimew ma ko mu tax wax ci yar bi la yaayu démb yi ak yaayu tey yi duñu benn parce que yaayu démb yi dañoo sëy sëy bu rafet jël seen doom yi metti leen en garde am fu ñu leen teg am lu ñu leen bëggal bàyyi leen xel yaayu tey yi nag moom tubarkalla macha allah ah, may nañ seen doomi liberté mbal leen kaw mbal leen suuf xale yi am nañ sañ-sañ yoo xam ne yi am na yenn mag yoo xam ne ni ma ko waxee sama compagnie gi sañuñu ko di sol yenn solin yi di def yenn jëfin yi di dugg ci yenn yoo xam ne doo comprendre kon ëllëg kooku xamul fu muy teg tànkam kon ko ëllëgam jar na bàyyi xel bu dëgg ma tax doom boo ko yoree da ngay ut foo ko teg da ut noo ko téyee da loo ko jàngal am kersa am sutura am yar am teggin te loolu moo jafe ci xale yi tey fukki xale yoo tase benn moo ciy am yar benn moo yi am teggin ci des yëpp ñu leen neex la ñuy demee ñu leen neex la ñuy xam du ci ñoom nag ci kilifa yi la man pour man li may gis. Euh, ok euh, kii Tembo naa ci sawar a wax parce que ça parle du euh, futur de nos enfants ak ñun tamit lu ñu suñu futur ok en grosso modo wax benn affaire bu ndaw. gis nga perte de valeur bi fii fii mu ngi perse persister di dem duñu duñu mës a am la demee meilleur maanaam avenir bu bu rafet en commençant déjà à la maison parce que léegi gis nañu ne euh, y a trop de relâchement au vis-à-vis des parent parents yi bëri dañu abandonné et puis c'est pas le moment tey jii auparavant lu ñu doon gis bu njëkk ak léegi amatul amatul parce que bu njëkk nit ñi bëri woon nañ kersa trop y avait beaucoup de kersa mais léegi ñàkk kersa gi dafa bëri ci xale yi bu njëkk am na tey ji ñoo doon rombee da ngay xool maag yow ni ki yow dañ daan toll suñu génération yi nga xam ne ñoo leen gën a mag soo mosoon croiser sa prof ci mbedd bi non da ngay daw nëbatu ko mais maintenant c'est tout à fait le contraire da ngay gis sa prof daw nuyu mag di wax yow nga ne jëkk sëkk ko sa bët di ko xool loolu ci ñàkk kersa la bokk yooyu perte de valeur la amatul mu ngi commencé di perte repère yooyu loolu mu ngi ci xale yi boo demee ba ne man faale moo kenn mun ngay dëkk baa ngay yàqu donc ñu ñëwaat ci benn mu ci beneen kii bi euh, par rapport à nos leaders y a trop de tricherie démagogie fen bi dafa bëri nañu osé wax nit ñi dëgg xam nga politique nga def ko du fen du fen mooy tax nga am nit ñi mais soit véridique ci li nga nekk ak li ngay wax parce que de nos jours lu ñu gis ci politiciens yi maintenant euh, vraiment ça ne promet pas des lendemains meilleurs waaye ils clignotent à gauche et pour tourner à droite ce qui n'est pas du tout normal. Donc, nous, nos dirigeants, nous avons que échouer à leur mission d'abord, avant que les populations de Nous avons que échouer à cette mission. Parce que aujourd'hui, yow imagine mag mu toll ni mag mu toll ni yow kilifa bu toll ni yow un politicien nga taxaw devant tes enfants yow yaa sañ wax li suba nga ne maa waxoon li teggi naa ko wala masuma ko wax te ñëpp dégg la mais loolu anamu fu ñu jëm fu ñu jëm donc quand on veut éduquer nos enfants pour le futur ça doit commencer par nous d'abord ñun lay commencer ci ñun lay commencer ñu montrer le bon exemple léegi leen ko un enfant c'est comme une machine photocopieuse une machine photocopieuse mënoo mënoo mënoo ko ne euh, euh, rek film ay faute donc lu mu gis rek lay tiré jox la ko génnal la ko donc c'est ça nañu jox xale yi li nga xamante nos parents nos gérés parents loolu la ñu legee ñu transmettre valeur yi à nos enfants bés bu ñu ko defee on aura un lendemain meilleur et puis dina gën a prospère beneen affaire bu ci tegu mooy le fait que ngeen indi benn thème bu am solo boo xamante ni pratiquement bon actualité la surtout côté jeunesse bi tamit boo xoolee au Sénégal au Sénégal fii nii chômage bi xaw na bëri tuuti bon ñu bëri ñu ngi jànkonteel des difficultés yoo xamante ni doy na waar doy waar boo xamante ni munoo natt difficultés yi ñuy am après dans le futur parce que munuñ ne da ngay jàng nga am bac nga dem université boo demee université deux ans trois ans tu n'as plus la force pour continuer parce que moyens yi toutes les conditions ne son pas réunies maintenant si tu n'es pas bien formé après tu es appelé à être un grand chômeur alors fu toll nii ci mondialisation mondialisation bi ni ak système monde bu ñuy wax ak modernisation yi am technologie technologique yi ñuy am si jeunesse bi jàngul wala ils ne sont pas formés pour un futur proche donc Sénégal day am benn déficit intellectuel boo xamante ni après on aura de sérieux problèmes et tout cela c'est dû aussi à nu dirigent quelque part parce que bu fekkente ni yow mënoo tabax ay université il n'y a pas de très bonnes écoles loolu ça peut amener des difficultés parce que bu nee demal jàngi nga nekk mature et vacciné nga am des responsabilités déjà problème bourse day am problème suivi éducation day am maintenant si bu fekkente ni suivi boobu continuer wul yow da ngay mujjee mel ni man rek ñëw si jotaay bi di caayan boo paree nga dugg ci biir après añ génnaat ñëw caayan dem fubali ñëwaat toog pendant ce temps là maire baa ngi toog di xaar ñaar affaire mooy am soit ci agression bi ngay mujjee wala nga nekk si travail boo xam ne pratiquement tu le mérites pas ko maintenant c'est c'est c'est c'est compliqué léegi gars yi dañuy bàyyi corruption bu métti bu ñu nekkee fii sàcc alal réew mi ñu nekkee fii nii di luubal xaalisu askan bi nañ may jeunes yi ay emploi maintenant lu tax ñi am emploi mooy dañ leen di former mooy dans les universités dans les écoles de formation bu ñu leen ba pare nañ leen jox ay opportunités ñu bàyyi ñuy jël des gens à l'extérieur des entreprises yoo xamante ni tey jii nii sénégalais bi ngay xeeb mun na la ko defaral. léegi lu tax moom mun na la ko defaral parce que da nga bëgg xaalis jox nañ la par exemple 500 millions yow nga jël 300 millions yëpp def ko sa poche 200 millions yi nga bëgg ko di ko koti koti si temps bi nii comme ça. moo tax après munoo xam fu Sénégal jëm parce que xaalis bi ñuy sàcc fu ñu war a def tali boo xamante ni huit kilomètres la ñu def deux kilomètres après population bi dañuy vivre dans des difficultés jeunesse bi day am problème pour avancer parce qu'ils ne sont pas préparés. bu dee cadre représentant bi moom moo suñu njiit moom moom ñu ñoo ko fale pour mu voter mais li ko fal mooy pour mu gérer toppatoo xale yi topp ba ëllëg ñu mën a relève am parce que président du lu ndaw njiit la dafa war a exemple. xale yi mën a roy ci moom kon donc moom naka la ko mën a defee mooy mu basé wu financé ci booy yi ñu def éducation boobu normal ndax ëllëg ñu mën a am futur bu président bu normal léegi tey jii yow boo doon jox conseil kan nga koy jox jeunesse bi wala suñu dirigeant yi non ñaar laa la ñoom ñaar ñëpp laa koy laa koy jox muy bu dee cadre jeunesse bi jeunesse bi nañu wéy ndigal topp ndigalu mag jeunesse bi ci bëgg ëllëg lu baax il faut ñu déglu mag ñi parce que mag ñi dañ leen xalaatal lu rafet mais bu dee cadre président nag moom na gëstu population bi parce que population bi ñoo koy jox carte carte ba mu falu ëllëg kon donc bu falu war na mën a gëstu ñu si ginnaawam pour mën leen a fal ëllëg waaw. dëgg la waaw tey su ma doon joxee conseil man en notre jeunesse laa koy waxee parce que mag ñi mag wàllam jeex na ndaw moo des kon ndaw moo war a jéem a defar avenir am xam lu mu bëgg xam fu mu war a teg tànkam war a jéem a nag ràññale lu baax ak lu bon parce que lu bon amul mujj kon nit ki sooy nekk nekkal ci lu baax yàlla nag dafa ànd ak maanaam ki nga xamante ne moom a ànd ak patient te jeunesse Sénégal yi léegi dañoo bëgg kutu kur rek daal di tekki même soo tekkee ci kaw sax benn as bi nga xam ne jotagul tekki boobu su ñëwee yow di nga dem ko fa te dafa naa yow nga des fa tekki ba bañ a ñëw gën parce que kenn ñaanul mukk mun di am alal boo xam ne da koy lekk ci ndaxar ok kon dama naa la bu njaa xam te xam li am solo mooy ci a ne nga war a xëy dem ne mooy puso damal nga daan ci sa doole ba yàlla da ci fekk ndax liggéey taxul nit ama liggéey taxul nit an moom tamit xamul li nga xamante ni yàlla xamul lu metti lu jot la xam nekkal ci li nga war a nekk ba yàlla di la fekk ci li nga xamante ne moom nga bëgg yaa ngi comprendre parce que soo xoolee Seydina Mohamed à l'âge de 40 ans la ko fekk si bâtiment te si zaahir sàmm la woon tey loolu su ko fa xaarul woon du ko fa fekk ci kon suuf kon nit ku nekk war nga mën a avenir fexe ko defal ko rafetal ngir say waajur yi nga xamante ne ñoom ñoo la jur ci parce que ñoo nekk say nawle pour man njiit defuñu dara parce que wala njiit yi yar nañ seeni doom mais ki jur sa doom bëgg ci moom dara ëllëg yaa ko mën a yar kenn la fekk sa kër di la yaral sa doom bu dëgg man sama doom mën naa ko mën a yaral sama bopp loolu sa doom tey bëgg si dara defe naa yaa ko sa bopp bu dëgg kon nag njiit yi duñu lay tax dañ leen di tooñ man de man njiit yi du ma leen reporté dara dara ku bëgg baax ki sa bopp yaa koy sàkku comprendre ku bëgg sa ëllëg baax tamit yaa koy liggéey ba tax na njiit yi man mënu may na wax dara na yaay yi góorgóorluwaat def ci xale yi yar jàngal leen jom ak kersa ak suñu teg seen tànk mu daal loolu laa gis sama tolluwaatoon ci jur tey dinaa xam man na laa yaral sama doom benn nit du ma sama doom ndax njiit li mu jiite mi ngi ko jiite waaye yow sa kër ak sa doom yaa ko mën a yaral sa bopp man de li ma yare man ak ma yaral samay njaboot ah yàlla rek mooy dimbali ku nekk nag waaye doom dañ koy yar fi ñu ko war a yare mu diggante ndey ak baay ñooy defar doom bon je crois que laal naa ñaari couche yëpp muy jeunesse bi jeunesse bi tamit nañu xam fu ñu jógee ndaw doon ndaw teew te bañ a am jom dëkk li koy avancé loo mooy liggéey fainéantisme yóbbul dëkk kanam la preuve regarde les grandes puissances la Chine fan la jógee ba tey fu mu agsi mu leen ko may lan ma leen ko may éducation ma leen ko may c'est une nation très tellement euh, éduquée avec l'indiscipline on peut rien faire on peut rien faire avec l'indiscipline Ça, c'est pour, pour, pour, pour, pour les enfants. Pour nos leaders, qui aient la franchise de dire la vérité. ñuy wax nit ñi dëgg bàyyi kàcc bi sacc bi ak jéem a muusantal bi loolu du dox te fii le constat qu'on a fait euh, liggéeykat yi les vrais travailleurs mooy maanaam le Sénégalais lam daal boo xamante day xëy di takkale di liggéey di ñàkk nekk ci naaj rey boppam il n'a rien contrairement un menteur koo xamante ne fenkat la sàcckat la moom mooy réussir yow sa côté léegi donc su ma gisee très dañu dañu bëgg orienté ci dundu fen pour ñuy fen pour mun a réussir parce que tey boo def boo jaarul foofu doom am doo am dara te ngay jàng ba taxaw yor say diplôme ñu lay traîner de gauche à droite par contre si tu rentres dans la politique ci naan ci taf-taf nga am xaalis l'argent du contribuable lañ jël di ko jox ñenn ñi bàyyi ñenn ñi où va ce pays on se pose question fan la jëm fan la jëm nañu gën a góorgóorlu nos leaders ñu xam ne politique du ay wax di fenantu déedéet politique du fen politique vision la am vision boo xamante dafa leer nañ pour sa avenir u dëkk c'est ça qu'on appelle la politique même dans ta propre maison da nga fay def politique pour nga mën a gérer sa kër bu baax c'est ça qu'on appelle la politique mais li ñuy def ni politique politicien yooyu yoo oh non ça n'avancera pas le pays ça je vous le waaw loolu bon si deux partie la quoi parce que tamit gëm naa ni luñ la xeex xeex xeex xeex xeex du jeex nit mun na la xeex yow ngay xeexak sa bopp di xeexal sa bopp di xeexal ñi nga nekkal bu fekkente ni ki lay jiite nanguwulaa jàppale nekkul moom kese moo fi nekk man gëm naa ni ñii nekk fii ñu bëri yaakaaruñ ki politique par exemple man ci li ma yaakaar mooy am naa samay diplôme nit mun na ma jël ma dem liggéey au cas échéant mun naa jël sama doole xale bu ndaw la ma dem par exemple def journée maçon lu ma am ma ñëw gérer ko léegi juste pour dire que relâchement loolu tamit beneen faiblesse la ci ñun ñu relâcher ku nekk da nga war di encourager sa morom di ko may doole nga ne ko sa waay yow da ngay xeex parce que xeex bi moo lay may lu bëri. xeex bi nag du doole xel la mooy boo lambee fii dajoo dama lamb fële boole ceeg jaamu yàlla gu mat sëkk. gëm naa ni yàlla waxul kenn dara te du tëj buntu wàccee rideau donc am nay opportunité yu bëri yoo xam ne xëy na day ñëw mais boo xeexul boo ko demul uti yow doo ko am parce que yàlla suñu borom subhanahu wa taala dafa na ñaan leen ma may leen mais du parce que da ngay tëdd sa kaw lal pour am ko donc loo teg teg teg teg ataay bi am na fooy toll tu es appelé à subir yenn responsabilités yi donc du ay nelaw moo la koy may léegi maintenant suñu gouvernants yi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy jiite ngalawaay ngir yàlla wa rasuulihi buñ jàpp ni nguur du jeex dongaasi gi day jeex bu la leeree ni day jeex li nga xamante ne te jii nii yow projet boobu nga indi nga ne ah man programme bi laa leen jox te lii laa bëgg a par exemple réew mi joxal nit ñi lu soxla nawet bi da ngay ñëw wër si town bi fii nii fépp ndox la amul ay égout yoo xamante ni day évacuer ndox mi. parent boo xamante day nekk ci gàlle bi amul lu mu fayee courant courant bi cher na trop amul lu mu fayee ndox jàngi école bi il faut muy nekk fi di ko kër ci am ñoo xamante dañuy xëy fii si bi fii nii il ñu xëy ba pour mun a yónnee dépense loolu dafa xaw a tar nañ gestu askan bi ñu yombal ñu li nga xamante ne mooy nécessité bi léegi loolu bu yombee yeneen yi ciy nekk création d'emploi yi ñu respecter askan bi ñu xam ne ñun ñoo leen fi teg léegi comme que ñun ñoo leen fa teg nag nañ ko teg ci yoon ñu teg ko ci code waxuñu ñu satisfaire ñëpp donc jeunes yi bu ñu découragé bu ñu bàyyi nañ dem uti xam-xam am courage affronter les choses dirigeants yi tamit nañ xam ne ni jeunesse bi mooy avenir réew mi donc nañ leen jox lu leen war a jox respecter la population les jeunes ñu prévoir ay. affaire yoo xamante ni tey ji des emplois wala des projets pour un futur proche comme ça ñoom tamit bu ñëwee ñu mun a jël relais bi après pauvreté bu ñuy wax nañ ko xeex autosuffisance alimentaire bu ñuy wax crise éco bu nekkee nii même bu fekkee mënul dañ ñu wàññi parce que taux de chômage bi bëri na trop si temps bi te loolu ñoom ñoo ko def parce que dañuy ñëw am nga branlo a jàll amoo branlo nga xaar yooyu dafa war a jeex fii après su ko defee ñu bàyyi caan bu métti bu ñu nekkee si taan bi dañoo sonn si naan ataay bi voilà. jërëjëf sëñ bi kàddu yi am na solo trop léegi nag da ñuy jox say dernier mot rek. waaw xanaa di leen jaajëfal rek parce que c'est c'est important aussi parfois ñun amuñu accès aux médias pour wax lu nu metti wala pour am yenn revendication yu ñu def te sunu droit la am ñoo xamante ni tey jii nii juste parce que da nga war a nekk un quelqu'un pour ñu jox la kàddu. alors que ñun ñëpp nous avons droit à la parole. donc chers amis internautes je crois que déglu ngeen bu baax euh, no les différents intervenants ku nekk joxe na sa sa idée sa xalaat par rapport ak suñu thème tay bi mais ak lu mu mënti doon rek Sénégal benn bopp la boo xamante ne kenn mënu ko xar ñaar donc ñun ndawi tey nañ nañu takk ñu liggéey parce que c'est nous qui pouvons construire un un Sénégal meilleur. et en plus de sa nos dirigeants aussi nañu gën a jàppale jeunesse bi gën a liggéey pour que jeunesse bi aussi mën a mën a xool ci ñoom. di leen jox dig daje ba beneen yoon et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer sur la cloche pour recevoir les premières notifications